di ñëwaat ba tey ci invité yi gis nañu ki nga xam ne nag moom moo di eh, eh, la chanteuse de tous les temps di Dieyla di xale boo xam ne tamit bu man li muy def la ñëw imposé boppam ci li nga xam ne moom moo di i tey sa relation moom euh, moom sama jigéen la euh, nit ku baax la Souhaibou Télécom tey fu mu mën a yegg loxoom génn ci parce que maag moom iPhone 6 lañ tàmbalee ba tey iPhone 15 Pro ba tey Samsung ba tey lu ne kon mi moom ah, Souhaibou fu mu mën a yegg doole jëy laa mi wàccu ci parce que bu ko neexoon mu ne artiste la sañ na dem fu ko neex jëndee fu ko neex bu ko neexoon mu ne artiste la bu woowee iPhone sax man nañ ko may téléphone mais dañuy déedéet moom lu mu soxla ci man la koy jëndee te yàlla xam na ne amul fukki dërëm boo xamante ni bas naa ko may ba beneen bu dikkee dama koy jaay ba mu jeex tàkk teewul lépp lu mu mas soxla ci man la ko jëndee kon moom tey bu dëkk bi doxee loxoom génn ci waaye bu sooy bu télécom yeggee fenn bi tamit loxoy jayraam yi tamit génn ci mm-hmm. ayca ma chérie nuyu naa mm-hmm. ngi lay fay seen bu baax ak jàmbur ci loolu ngi ni maa ngi si jàmm alhamdulilah kañ place am mu may mais son yi ko xam Sénégal koo wax mu ne la boo ñëwee si place am dina kaf ak yow dina réew ak yow donc moom moo ma wan loolu ba na man ma jàpp ko sama jëkkër jàpp ko ba wóolu ko bàyyi ma ma ñëw ci bésam donc kon moom moo baax li muy wax yëpp ci moom la nekk moom moo baax wax dëgg yàlla sama frère la sama lépp la et que di ko ñaanal ci place bi yàlla ko ci yàlla defal ay ndami ndam ndam yu bëri waaw mi ngi noonu non man maa ngi ñëw léegi ah incha allah après koor gi non après koor gi dinañ gis ñu ngi jële image bu bouquet teranga la teranga la teranga lan laa war a wax ci lii yaay sant rek sant rek sant rek déplacement bi ñu def ñëw sa kër tuddal ko te ñi mu xam bari lool bu bàyyi def eh, Aïcha ma chérie nuyu nañu la. fay naa leen. Euh, Mam Diarra. Euh, sa diggante ki nga xam ne moom moo di sëy bu télécom ba tey ak gis nañu bouquet bu yaañu bi nga xam ne moom nga jox lan kontaan ci moom rek kii sama góor la sama góor bu yàgg la. mu séq ay teraanga mu nekk nit ku baax. ubbi euh, boutique am def ma marraine ne yow laa tuddee bis bi loolu rek neex ci man. neex na ci man kontaan naa ma di ko ñaanal boutique bi da doon ay boutique yu bari borom baax la xale la mën na liggéey am na jom xam na li muy def lépp lu mu bëgg ci àdduna dina ko am. a ah, xeeb surtout loolu a ah, xeeb. <laughs> ok kontaan naa. non lii moom dama ci am mbégte ak kontaante parce que moom sama rakk la sama xarit la et sama féete la parce que dama ko fekk Chine moom ak jibeel mi taxaw ñoom ñoo ma jël en charge ba ma ñëw dem naa Chine ba ñëw fayu ma reer fayuma hôtel lépp ñoom ñoo ko jël a ah, soxna si ah, ah, moo ko moo jibeel kon tey su amee bis bu mel nii dafa normal ma tuddee leen ko c'est normal pour ñu ma wan leen sama mbégte euh, ñoom loolu moo moo waral lii cadeau bi nag muy cadeau bu rëy ci man muy loo xamante ni euh, lu spécial la daj na ci sama xol kontaan naa ci moom franchement di sant tamit jaara jong bi euh, kii ndey kumba jong bi nga xamante ni mooy mbokkum ndeyam lekkul dara bàyyi ko yàlla xam na ko moom moo ko dooleel feccum liir bu neexee nday jaa jàpp ci mbagg yi mais kuy naaw say dunq di wax dafa nga jëm daa soriwul kii bu ñemee fi mu jëm loolu ndey kumba jong la li mooy li ma wax rek ku la abal mbagg fu ne ku la abal dunqi heure bu ko suxtee dootoo naaw kuy naaw kuy naaw nag say dunq di war dafa nga jama a soriwul kii ay dunqam day kumba mi ko jàpp kon loolu tamit dañ ci sant ñoom tamit di leen remercier baax a baax ay ca jaajëf ay piiral jëy la waaw mi dinañ ko fekk kon bu paree pour yaatal dafa pare pour jàppale jeune entrepreneur yi nga xamante ni ñu ngi ci dëkk bi pare pour jàppale euh, revendeurs yi ndaw yi nga xamante ni ñu ngi ci dëkk bi waaye pare pour créer ay employés te loolu yaakaar kon euh, ci développement réew mi la bokk kon kii bu réew mi doxee loxom génn ci. dëgg la bu réew mi kontaan naa ci li ma ko doon xasee naan ko. Mm. sa panache bi 2 mètres la. ah tey 3 mètres la la may na sóoru boo xamante ni bu la. di ko ñaanal mu jikko lim ciy bëgg. moo ko xam yàlla na ko yàlla jàppale. waaye na xam na li xew ma dalal ko lu xew. moom yow la njëkk a critiqué de nee na moom gis nga lii ëpp na li nga xam ne moo di 10 mètres carrés mais nee na yow sa sóoru. waaw ba tey rek xam nga comme que def naa 3 mètres carrés mu def na man su may inauguré waat ma jéem a def 1000 mètres carrés rek. te mën naa ne en tout cas daal bi yanj na rafet la ñu koy ñaanal yàlla Euh, li mu ci bëgg moo ko xam. yàlla ko yàlla daal di mottali mm. en tout cas nit la koo xam ne ku am yéene xëy na ci jeunesse bi la. Mm. donte benn place am la yor wala ñaari place am la yor da nga koy gis sax employé yi muy yor. maanaam bu doon le liggéey kese maanaam bu doon ne kuy wut xaalis. du yor yooyu boobu personnel. dëgg la muy tukki di lu muy jëf di leen wane. day wane ne ku ñàkk ki ñaan. la léegi nag su décidé décentraliser ko peut-être dafa bëgg képp ku mu jël ngay emploi nga a xam naa ne objectif am moom romb na parcelle. c' est important romb na Pikine. c' ko xaaree Mbour jël ko ba fekk Thiès jël ko ba fekk. Mhm, mhm. mais deuxième deuxième saison bi yàkkamti nañ ko de am na Sénégal. waaw deuxième saison bi nag comme moom euh, boo ne ko kaay ñu suyee. da ci boole lu ci bokkul. mais moom tey lan la maye ni li mu maye d' accord. sañ se na d' accord naa lii moo ko jàpp <laughs> lii la war di sol. am nga moom jàpp ko de. waaw sëriñ la te daa gàtt sëriñ la mm. nit ku baax la lii moo ko jàpp sol na ko mm. deuxième saison bi moom dañ koy waxtaane waat mm. dafa ne bañ mu déborder <laughs> sëñ Soyebu lan ngay tàggatoo en tout cas di ko jaajëfal franchement di jaajëfal tamit invité yi nga xamante ni yëpp ñëwal nañu gis ñu ñëpp ñëw tudd ñëpp waaye ñoo ngi sant ñëpp ñëw gi mu ñëw du mbetteel ci man parce que tamit wax dëgg yàlla xaaroon naa ko ci te xam naa ne tamit borom xol bu rafet la maa ngi koy jaajëfal bu wér a wax dëgg yàlla merci beaucoup ñu leen sant la gërëm la rek sant leen gërëm leen di nuyu yéen ñëpp di sant sénégalais yi di leen gërëm di leen wax ne nii la. Mm. incha allahu rabbi ba ci kanam tuuti. macha allah ngeen xaaraat ma. d' accord ayca merci. merci beaucoup jërëjëf. ayca c' est beau c' est beau ayca. Sidi Amina mbokk mi ay senior bis boobu ku ne bëggoon na nekk peex te nekkoo peex peex li weesu yaa ko moom bul mën a peex ah. parce que soo yëgoo di saa